wane tamit bëgg gi nga xam ne moom la bëgg bëgg réew mi léegi ci posture boobu nga xam ne Ousmane Sonko entamé na ko eh, concert casserole am na ni ki démb euh, tey ñu xëy jàpp jàpp El Malick ndax suba ñu gisaat leneen bo euh, jógee ci Ousmane Sonko ak Pastef. waaw son Sonko il est obligé d'être inventif euh, parce que mënuñu la euh, teg li na teg lii yëpp parce que buntu boobu bi ñu tëj buntu boobu ñu tëj donc foog nga bëri ay pax. donc il est obligé de trouver des stratégies pour euh, se tirer d'affaire mhm. bu dee dafa bëgg a manifester ñu ne ko mënoo manifester su bëggee génn këram ñu ne ko mënoo génn su bëggee voyage ñu ne ko mënoo voyage il est obligé de trouver d'autres moyens léegi nag concert casserole bi c'est bien que bon ah bon moi j'ai pas j'ai les statistiques mhm. mais selon li ma gis autour de moi et li ma dégg et selon les vidéos que j'ai pu voir j'ai vu que ça été suivi jusqu'à quel pourcentage je ne sais pas mm je me dis pour quelqu'un qui, qui, qui est interdit de sortir de chez lui et qu'il parvient à mobiliser tant, de personnes quand même c'est assez euh, c'est assez salutaire mm -hmm. président Macky Sall dama gis ne ni moom toujours dama ragal sax est-ce que Ousmane Sonko dans les statuts du Pastef là il va pas trouver euh, euh, une petite ligne quelque part pour le président Macky Sall hein <laughs> xam ne ni. te moo ngi waajal bind livre aussi. oui mais c'est le en partie moi je dis que c'est le directeur de campagne de Ousmane Sonko. Mm -hmm. le mhm. président Macky Sall. Mbadou Macky non euh, je dis le président Macky parce que saa yu ko euh, Sonko il était dans en partie il était dans le néant quand il était au niveau de de la direction générale des impôts et domaines. Mm -hmm. presque ñi Sénégalais yi xamoon Ousmane Sonko bëriwul. Mhm. président Macky Sall tax na ba ñëpp bàyyi xel Ousmane Sonko à travers ce décret de radiation yi nga xamante ni jël na ko à l'encontre de Sonko. l'histoire se répète parce que Macky président Macky Sall si boppam c'est vrai il était avec le PDS tout ça il, il avait des postes de ministère de ministre il a été premier ministre il a été ministre de mhm. mais taxutoon Sénégal yi à mhm. cent pour cent il a fallu que le président Abdoulaye Wade ait décidé n'est-ce pas xañ ko assemblée xañ ko assemblée nationale buntu xatal ko sénégalais retourner leur veste ànd ak moom les sénégalais ils n'aiment pas l'injustice l'injustice il n'aime pas les gens qui se croient trop forts pour imposer leur loi loolu tax na ba Ousmane Sonko tamit il a profité de cela la victimisation bi nga xamante ni c'est normal quand tu es victime tu obligé de dire que je suis victime de crier de faire du bruit c'est normal mm-hmm. mais au-delà il a eu un discours quand même qui a charmé la jeunesse mm. discours bu bu wutee ak discours yi ñu dégg xam nga njëlbeen da ñëw je me souviens nous quand bi fi Abdou Diouf nekkee mais da doon dégg ay xam nga élection mu ngi ñëw wàccee nañu kër gi ration alimentaire wàccee nañu ceeb fële wàccee nañu diwlin fële. naxaatay <laughs> <laughs> voilà quoi après da ñëw nga wax nga wax gars yi tàccu. tu as des slogans passe partout les gars xam nga gars yi tàccu nga dem élection ñëw nga gagné Ablaye Wade il avait c'était un homme à slogan Ablaye Wade il avait les slogans qui qui mobilisaient xam nga. il faut toujours travailler liggéey rek et cetera tout ça. Mhm. xam nga mais yàlla na Euh, il a fait son temps après mu dem bi mu demee Macky Sall ñëw Macky Sall aussi c'est un homme à slogan avec les le truc de de fast de la patrie avant, le parti une euh. gouvernance sobre et vertueuse xam nga Macky dafa dogal nag c'est quelqu'un qui aime les mots forts am na ku ma wax naan moom gouvernance <laughs> so lu mu ko wax sax sombre et désastreuse ah, là <laughs> en tout cas en tout cas bu ñu lire information yi bon on se dem on, se dit est-ce que cette gouvernance là a été sobre léegi fois moom def na mais saa yu tegee Ousmane Sonko lu metti rek code de popularité Ousmane Sonko yokk. Mhm. donc bi mu bi ñu ne dañuy jàpp Ousmane Sonko Ousmane Sonko sénégalais yi gën a rangé aussi moom. bi ñu ko jàppee sénégalais yi rangé moom ba mu génn. Mhm. Ousmane Sonko lu ñu ko teg rek. Macky Sall le président Macky Sall lu mu jël décision par rapport ak par rapport ak posture bu mu nekk. Mhm. ak aussi euh, justice lu mu jël. comme décision da ngay gis ne Ousmane Sonko popularité am day màgg. au lieu mu wàcc. am na ñoo xamante ni amaana bu ñu leen fi jiñoon viol

dama bëgg maanaam bokk ñoo bokk yoon wi ñu jëm waaye kenn xamul kan moo war a jiitu sa morom. c'est ça ak kan mooy tegg sa tànk. oui mais à un moment donné moi je me dis c'est euh, il grand temps. Mhm. tey Sonko ak Ousmane euh, ak ak président Macky Sall yegg niveau boo xamante ni gëmuma ni ñoom ñaar seen initiative bopp dina tax ñu toog loolu gëmuma loolu parce que am na foo yegg nit ki mënatu leen mënatoo jël mënatoo def loolu. c'est vrai président Macky Sall mooy mooy président Sénégal mooy président Ousmane Sonko mais gëmatuma ni mën na def loolu directement. Mhm. léegi nag. la voie de sortie c'est d'avoir des gens yi nga xamante ni ils sont pas colorés ils sont neutres mais capables d'être à équidistance entre les deux camps. mais est-ce est ko ci réew mi. ça aussi c'est une question que. du ñàkk que l'on peut poser. moi je me dis que du ñàkk. Mm-hmm. du ñàkk léegi nag kan la xaw ma mais du ñàkk qu'on trouve des gens il des gens de l'ombre yoo xamante ni ils sont prêts à peut-être faire faire quelque chose. Mmh. mais il faut qu'on règle ce problème là. parce que sinon li ñuy def mooy élection dafa war a ñëw. Mhm. te élection bu ñëwee Ousmane Sonko il va nécessairement peut-être déposer sa candidature. et je ah loolu loolu loolu kañ moom su demoon kaso sax nañ ko nañ ko déposer. léegi sûr et certain. est-ce que cette situation là à Cité Keur Gorgui. qui prévoit actuellement là-bas. est-ce que dina mën a perdurer. ay fii ba élection fii ba février je gëmuma ko dama gëm ne nii le problème tôt ou tard c'est une patate chaude il faudra il faudra s'en débarrasser. Mhm. dëkk léegi lan mooy doon. les fañ ko yóbbu <laughs> fan lañ ko yóbbu lan mooy doon les conséquences. Hmm. les conséquences peut-être ñu mooy jàpp nañu Ousmane Sonko ce qu'il ce qu'il a prophétisé n'est-ce pas sur France 24 loolu am c'est-à-dire les élections ne vont pas se tenir ou bien les élections vont se tenir mais dans le chaos ou bien il y aura rien mhm. Ousmane Sonko ne va pas participer aux élections mhm. ou bien on décide de trouver une autre solution bi nga xamante ni mooy la solution qui me semble la plus intelligente à ce jour c'est de pouvoir laisser tous les candidats aller aller à Euh, ku bàyyi par exemple euh, Karim ñu waxtaanee ba Karim Wade nee nañ day bokk. foofu foofu may ñëw foofu ma ñëw parce que aussi bi li indi coow li actuellement euh, Cheikh ba daanaka sax moo war a nekk suñu dernier point ci waxtaan wi ndax bëgg naa aussi ñu wax ci Euh, ki nga xamante ne jamono ji moom lépp la ñuy déglu mooy kan candidat wu Benno Bokk Yaakaar ba léegi nag président il est vingt heures mais ba léegi jotaguñu benn communiqué gisuñu benn nouvelle euh, boo xamante ne euh, jóge na ci président de la république pour indiquer ki nga xamante ne moom la daal di tànn ngir mu nekk candidat Benno Bokk Yaakaar ci élection présidentielle ñu dëgmal mais fi nga fi nga fi nga ko laalee foofu la da nga ne président mu ngi ci yoonu réhabilité Karim Wade mu ngi yoonu réhabilité ki nga xamante ne moo di Khalifa Sall mm-hmm. mais ci projet de loi bi nga xamante ne suba woote nañ ko en session euh, extraordinaire assemblée nationale y a y a un petit point boo xamante ne Cheikh euh, depuis hier daanaka sa fait sa ça fait ça fait quand loo xamante ni ñu bari bàyyi ñu